Thank you asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay comme ni ngeen ko gisee tey nag euh, tey la journée internationale de la croix rouge 8 euh, mai tey nag dañoo ñëwoon fii ci croix rouge bu Thiès ak ñoom nag yóbbu don yi nga xamante ni at mu jot ñoom ñu ngi koy mënee ci fii biir Thiès tey nag dañoo tànn milieu buñ naan euh, détenu yi fële maanaam prison bu dixième fa la ñuy dem tey ànd ak ñoom yóbbu don yi nga xamante ni moom la ñuy yóbbu jox ko prisonniers yi foofu léegi nag ñu dugg xool gars yi nan la ñuy ànd ñoom dem yóbbu don yi nit ñi fi ne suñuy mbokk lañu suñuy dëkkandoo lañu suñuy lépp lañu te ñii nga xam ne ñoo leen yor ñoom du ñu wër ci fenn di wax ne nit ñu jox leen ñu mais ñun ñëpp xam nañu ku yor ay nit yorin ba dafa am lu mu laaj lu bëri. te bien vrai que nag ñun ñëpp xam nañu l'état fait beaucoup de choses mais tamit état ñun société bi ñun ñoo leen di jàppale parce que ñoom ñun la ñu nekkal donc aussi looloo waraloon tey ñu ñëwoon fii ci maison d'arrêt et de correction ci 8 mais 2023 bi di journée mondiale Croix-Rouge Croix-Rouge Thiès dajale woon don yi pour ñëw ñu indi ko fii ci mag bi di wax ne aussi ñi ngi continuer waat di ko defaat ndax loolu dañ ko war di continuer annuellement lépp lu ñu am ñu indil leen ko vraiment di aussi lancer un appel à toute la population di leen wax ni lu waay dajale ci matériel ci bagage ci lépp nañ ko indi fii ci maison d'arrêt et de correction ñu jàppale ñu jàppale ko sunu mbokk yi nekk fii jàppale leen ko ndax malgré li état def yëpp mais ñun aussi dañu war di jàppale EDA dans son rôle ba nga xam ne ci la nekk chaque jour di jàppale population bi ñun aussi ñëw jàpp ci vraiment di remercier aussi le directeur et son équipe ndax biñ ñëwee ubbil nañ ñu yaatalal nañ ñu te vraiment euh, affaire bi ci deux trois jours rek lañ leen informé woon mais vraiment jël nañ ñu Euh, comme tout ce qu'il faut te loolu mooy loolu Croix-Rouge ñun nag Croix-Rouge comme ni ñu ko waxee c'est un mouvement boo xam te ne il est là pour la population un mouvement qui est euh, humanitaire noonu lañ koy tuddee mouvement humanitaire indépendant et autonome donc ñun nekkuñu ci benn obédience lépp loo xamante ni lu jëm ci doomu aadama la ñu taxawul jàppale leen vraiment on vous directeur jërëjëf yow sa équipe merci beaucoup. waaw comme ni ngeen ko gisee daanaka dem nañ prison ba yóbbu nañu don yi nga xamante ni moom la waa Croix Rouge euh, yóbbu foofu ñu ànd ak nag secrétaire général Ablaye Gueye ak bi nga xamante ni moom lañ fekk waa Croix Rouge léegi nag ginnaaw gis ngeen nag ni mu fa demee yóbbu nañ fa li nga xamante ni matériel bi nga xamante ni moom la waa Croix Rouge yóbbu léegi nag ñu dellusiwaat fii nag war a mën a jox di daje ngoon incha allah euh, ci kanam tuuti jaajëfal euh, yéen ñëpp macha allah jërëjëf.